tey jii ñu ngi fii ci Kaolack pour fermer campagne bi di nuyu kilifa diine yi Serigne Mountakha Bachir Medina lew Léona Niassène Démène Kaneen Layène ak kene ba ak jàngu bi ci li ma wax ci sama euh, programme mooy indépendance justice supprimer ministre de la justice remplacer ko par haute autorité avec collège électoral ak conseil supérieur des cultes et pour yombal euh, discussion bi ak gouvernement bi ak kilifa diine yi ñu mën a toppatoo lu jëm ci njàng mi ak tamit euh, liy ñoŋal suñu diine développer tamit six pole régional nommé ministre d'État résident mu toppatoo trois directions yoo xam ne daf koy am trois directions yu muy am benn bi partenariat public privé ak investissement lay toppatoo beneen bi ci des les grands travaux intérêt public ak suivi ak évaluation motiver administration bi bu baax fexe ñu ñu génn ci dépendance politique di leen politique loo investir massivement lu bari ci région yi pour mieux accompagner les collectivité locales jàppale député yi bañ mën a euh, discuter ak askan wi ak commandement territorial bi ak fexe ba seen liggéey booloo xam ngeen ne quatre vingt pour cent suñu économie ma nga Dakar loolu nag day day tax ñu focaliser ci trois wala cinq potentiel de développement kon ñu ngi lax fii buñ fi développé arachide bi développé ay industrie d'arachide yi xorom si ñu fexe ay produits yu bari moo ci mën a jóge développé transport logistique air maire ak ferroviaire développé ci Sénégal yépp port secondaire ak port sec ak transport bi moderniser ko ma jox leen rek exemple fii ñu nekk mille six cent vingt deux mille six cent bateau ñëw nañ fi mais biñ fi ñëw ñun deux mille dix deux moo fi doon nekk tey yóbbu nañ ko ba trois cent bateau ak ay conteneurs yoo xam ne nii ñi juddoo Kaolack ko amul téeméeri at daanaka gën nga fee gis conteneur Paxagoog ci suñ man-mani bopp. ndax gouvernement bi projet yi mu waxoon yëpp ñu too ko def ko indi fii won ko waa Kaolack ba pare yóbbuwaat ko bloqué benn por pont bu nekk fee ba mënul dox ñu soutenir agriculture bi yokk prix gerte cinq cent francs je si ici pour vous dire que am nañ ay mécanismes yu ñu jël prix gerte bi yóbbu ko ba cinq cent francs développer élevage fexe ba nga xam ne nii jur gi danañ am lu ñu dundee te bañ ci déplacé u ñu développer filière production ak produit animalier napp gi ñu moderniser flotte bi defar protéger suñ géej gi ba def wut ay camion frigo moderniser pêche bi fexe ba jën yi doy ñu bañ ko importer defar lieu de commercialisation muy marché de poisson yi def fa ay unité de transformation ay emballage bañ mën a exporter defar artisanal ba nga xam ne nii danañ mën a ah toppatoo artisan yi bañ man di def seen i liggéey ak xarala ba mën koo commercialiser man koo yokku ba man koo exporté wàññi dund bi loolu nag ci bay dundee Sénégal dañu am neuf matières première mais trois rek lañ ciy transformer li ci des yëpp dañ koy exporté looloo tax ma engagé wu pour créer cinq millions d'emplois am na ñu koy diingat mais dañoo xamul Sénégal Sénégal 10 millions de personnes ñoo fi nekk entre 15 ans ak 60 ans 500000 emplois moo fi nekk yoo xam ne nii euh, formalisé nañ ko mu nekk caisse sécurité sociale waaw boo mënee 9 millions 500 yi 250 000 nga ci mën a jël par at kon amoo ambition ambition bi mooy nga am 1 million 1 million bi da nga koy tas entre richesse bi ngay créer ak emploi yi nekk secteur informel. yooyu yëpp ñu formaliser leen ñu fay seen caisse sécurité sociale fay seen IPRES defar njàng mi ba carrière tépp sénégalais boo xam ne nii dana mën a jàng làkkam dana mën a jàng làkk bi nga xam ne nii ci lay defee diineem dana mën a jàng beneen làkk boo xam ne nii dana ci mën a liggéey muy français wala anglais ba nga xam ne nii ci at yi ñëw danañ jël suñ làkk bi nga def ko langue officielle boole ko yeneen làng yi nga xam ne moom lañ am defaraat santé bi dindi CMU remplacer ko par caisse de maladie nga xam ne nii ñëpp dañuy cotiser wala ku mënta cotiser te amoo état cotiser la xaalis boobu ñu autonomiser hôpitaux yi ba nga xam ne nii ñoom danañ mën a am seen autonomie bopp di man di jënd seen matériel bopp di recruter compétence di man di équiper seen bopp directement secteur privé defar chambre consulaire yi yi nga xam ne nii mooy ëmb secteur privé bi yëpp fexe ba agence yi nga xam ne nii ñoo fi bari ñu dindi agent yooyu agence yooyu jël compétence yooyu dugal ci chambre yi affecté fa ay fonctionnaires jox leen mooy yi nga xam ne nii danañ mën a jàppale seen secteur privé ndax loo loo xam dem demba demba gën laa xam boppam di gërëm nag secteur privé bi nga xam ne nii dañoo signaloo pacte ah candidat yi man nag si ñëwuma ko waaye maa ngi koy rafetlu waaye buñ xooloon sama programme li nekk sama programme moo gën a fort li ñu def ndax sama programme lan moo ci nekk mooy dooleel chambre consulaire yi muy chambre de commerce chambre de métier dooleel secteur privé jox leen 100 pour cent marché public keneen ku jóge bitim réew boo bëggee ci marché yi nga jaar ci ñoom xaalis bi ñu bitim réew di jox nga xam ne nii day bëgg ñu di ko jox waa doom doomi réew ñu ne ko cinquante pour cent rek lañ mën a jox sa doomu réew cinquante pour cent yi des ci ñun loolu moo am ci àdduna bi di wax secteur privé rek nañ góorgóorlu ci beneen côté ndax ñu développé renouvellement des instances ak transparence ak démocratie parce que ñi fi nekk ba fi indépendance nekkee ba léegi wala ba fi Senghor nekkee ba léegi wala Abdou Diouf ñoom ñoo fi nekk nanguwuñ démocratie nanguwuñ transparence transparence te kuy digle cangaay da ngaa war a sangu ba noppi maa ngi gërëm nag ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo àndoon ak man ci campagne bi surtout la presse ak équipe bi ma àndaloon gërëm sénégalais yëpp yi ñu doon fekk si ak yi ñu doon seetaan di leen wax ne bu leen juum bi yoon tànn leen compétence mooy koo xam ne nii li ngeen koy wax mën na leen a wax ne la lii laa ci def bind programme yomb na wax programme yomb na li jafe mooy exécuter programme te exécuter programme da ngay wane li nga mas a def ndax fu ñu lay recruter ci àdduna bi da ngay xool li nga mën a def bala ñu lay jox programme ne lay exécuter ko kon nag maa ngi ta maa ngi ah taxaw fii di fàttali di fet di di fàttali ne ñun développé la ñu xam yëkkati entreprise liñ ci war a def def nañ ko ci yëkkati nañ suñ entreprise yëkkati ay entreprise ba ñu taxaw jël mairie defar ko ba tey jii jële ko budget 4 milliards yóbbu ko 7 milliards seetal dëkk bi développer ay entreprise bañ mën a taxaw andi transparence ci état civil ci suñuy discussion di ko transmettre direct ci télévision ñi nga xam ne nag impôt ak jël tax loolu rek lañ xam nañ moytu loolu ndax trop de impôts tuy lempo li fi jëm mooy ñu wax leen ku mën a développer dëkk bi loolu moo fi nekk kon nag ak beneen bi kooku am indépendance ci boppam yéen ñëpp xam ngeen ne je suis parmi l'exemple ci koo xam ne nii dafa gëm boppam jiital turam amul benn coalition bu ko ëmb ba muy wut ci maire ah, ñu pare mu mënoon a dem ci gouvernement bi ànd ak moom dem fa ñuy séddalee mu seddoo fa waaye ndegam musuma wax loolu waa Kaolack dama sàmm sama ngor moytu leen coalition yu bari yi nga xam ne nii buñ paree dañuy dem fekk lañ am ñu seddoo ko duñ tal askan wi buñ juboo bu juboo mooy seddoo ko duñ tal askan wi buñ juboowul nag ñu nekk fay xuloo ak a xeex tardeel liggéey bi kon nag tournée bi baax na jàngal na ma lu rëy man de dama doon dem ci nit ñi di leen seeti benn par benn Kaolack lañ ma accueillir ak mbooloo ak Touba ak fii ci Kaolack xam naa nag jàngat naa lu bari ndax ñaari mbooloo moo fi am fees dell ñu di ko yéem waaye ku xam waroo ko yéem bu dee mbooloo mi nga xam ni parti pouvoir la xam ngeen ne ger nit ñi jox leen ay kaar jox leen xaalis pour ñu ñëw la beneen mbooloo mi mbooloo moo xam ni seen yaakaar dafa tas ñuy daw di topp sa gannaaw te amuñu liggéey kon kooku war ngaa tiit ëllëg ñi xam nga ne duñ la muñal benn weer ñaari weer loo munut loo munut bu ko jéem a engagé di ko jël dalay sonal nga karewaat fi ñu taxawaat ci sa kaw di la def nañ defoon loolu nañ defoon ñi ci des te bu leen yaa yaakaar ne loolu dana yàgg kon nag maa ngi jàpp ne la yonent yàlla yusufa waxoon inni hafizun alimun man je compétent et vous pouvez confiance danaa gérer seen i mbir te duma ci luubal ndax yor naa loo xam ne nii moo a gënal salaire wala lu ma mën a jëlee ci biir gouvernement bi lu ma mën a jël mooy yokku leen ko muy sama ndam di ndamu Sénégal kon nag maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp bu dimanche ngi dem wote ci jàmm xëdd wote ji dog sant yàlla xëy xëy liggéey da ngeen woteel Serigne Mboup candidat ànd ndawle ndax moom moo fi proposé programme bu simple muy ànd nawle ànd liggéey daara ji tool bi penc mi am indépendance am takkul ci ay coalition réaliser dara ci secteur privé ak ci accompagnement secteur privé ak ci secteur public muy gérer maire boo xam ne nii maire yu ñemee ñemee génn seen dëkk fii di tàllal loxo amul ndax ñaari at yi yëpp ñu ngi nekk ci grève mais ñun dañoo xeex ba grève boobu population bi yëgu leen ko maa ngi leen di gërëm di leen sant spécimen baa ngi ni jërë ngeen def na ko def